dépense bi moom laa laaj damay dem marché. nabu yow nit nga est-ce que. nijaay nag yow lan nga bëgg. yow dépense daa tax nga ñëw di fëgg sa buntu nawle bi. waaw nag du ma la fëgg nag nijaay may ma jàmm soo ma joxoon dépense ma fanaanoo ko du ma la fëgg. eh Nabou yee eh, eh, eh, eh man du ma sa moroma soo may laaj xaar ma sa néeg sa nawle bii daa mu sa ñëw fëgg la. yow Nabou impolise niger nga waay. waaye eh nijaay déglu ma fii bu baax li ma lay wax man sama dépense laa la laaj ko rek man nag ma may nag sama jàmm. li mbaa simila kooku waaw moo ngi ñëw <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin sëñ bi yow tàng nga de waaw Malick man naka lay ñëwee moom moom moom xamu fi di ah dugal oto. ñu jaay kuy waaw wax nga ko muy wàcc si garage kalandoo yi waaw baax na bu wàccee aseg naa rek papaam Modou Awa ngi foofu ay ñoom ay ñoom papaam xeer ay ñoom papaam kayit ñëpp a foofu loolu duma ko wàcc damay dem léegi jëli ko. léegi ban maalikum bala ah sama bos. alhamdulilah rabbil moom kay sant yàlla. nijaay maalikumba mooy ñëw mooy ñëw lii de sant yàlla bu baax la daanaka egsi na sax ba ñu toogee ba suñu doom ji dellu si suñuy loxo sant yàlla bu baax waaw waaw merci merci nijaay mën nañoo dem jëli ko moom laa soxla yow dégg nga eh, eh, yow xaar ma sama dépense moom laa soxla balaa nga fi jóge man sonal nga ma torop waay yow balaa maa dépense ñëpp dégg ma nabu sama dépense mbéppee xam joxuma la rien de tous danga ma koy jox nag laa la wax joxuma man digaalew ma woon ak yow ay xëy suba sax di la fëgg sama dépense soo ma ko joxoon du ma la fëgg nang ma jox nag sama dépense. boo ma ko ba saatee ma nabu dama lay saaga nday de. waa yow yu ah nijaay yow moom soo fekk nga ni ba may jëlee suñu kër li nga waxoon. man boo mënoon liir liir sama dënn xam ne xol bu tàng lañ ci bind. sa xol dina yàgg a tàng waaye bu dee man la tey ngeen wan la tey bu dee man la yàgg ta jeeg xaw ma maali kumba xaw ma demba kumba du ngeen wan nabu nabu jëlal ma 100 bu dee man rek la du ngeen wan daw leen Malicoumba ngeen di ñëw. ici là ñëw leen ñëw leen Nabou bu ndaw. laa ilaaha illallaah sama doom. dafa toj waa yi dama indi basang bi dama indi basang bi. acca acca acca. waa Nabou. waa da ngeen dul ñëw sama gan gi yegg si na. Nabou mu ndaw. ñëw leen waay. ñu ngi ñëw. aha. ma may jooy rek. ah sa yaay la di daa kontaan indi toogal toogal toogal nii jege ma kaay sës ma sës ma rëkk waay njaay dem ngeen ba ñëw dem nan ba ñëw kumba ngi ah. kii sa tante nabu la maa ko takk si sa ginnaaw kii naa ba sonn nag amaguma ci doom kii turandoom la ñu jox ko ko. waaw Malicoum maa ngi yow. maa ngi nii nuyu leen. nuyu leen. Malick naa def. ça va. an seen yaay. papa ñii kii daal ñaar daal rafet sax. Hmm. kii mun naa la sa rakk ak kan la. waaw. sa yaay ji nag namoon na la. ak man sax namoon naa sama yaay. waaye nag Mali fum mu toll nii moom sama xol wee sedd. daa sedd guy ni glace. waaye nag Mali. waaw kii sa tante la. waaw wax nga ko sànq sama tante la. te yow xam nga ne balaa ma laa teral di la reyal ay pitax ak i ginaar ak ay ñombar ak i ay lapin ak i dama bëgg nga wax ma fan nga yem ci alxuraan man man sax xam naa ne wàccee nga jarul nga ma koy wax waaye bëgg naa daal nga tarit ma ndax bu ko defee sama noon yi dégg ko di rus seen xol ci mën dara jeex na te nag alxuraan ja fa mu jeexee laa bëgg nga coppati benn saar ci kaw tari ko rek wàcc moom ci suuf li ci des nga téye ko ba suba suba da ngay jiite ci jàkka ji suba incha allah ndax koñ bi kenn jàngut bisimilah. Mali ah yow la ni xaar de. awaasu billahi. iskay. minal seytaani kas sama téere ba yu kas ay dama lay doo bàyyi kii mu xool téere yow fu mu juumee du ma génnee mu xool fu mu juumee mu gàggante ma maaleykum ba yow ñaata at nga def daara juróom-ñaari at laa ba def juróom-ñaari at yow ara ay talogie bu jub sax munoo ko même bu dëng bi munoo ko. loolu da war a xam dama na yalwaan sax du dama yalwaan bu doo ko jàng ci la bokk ayaay. waaw waaw waaw. waaye yow Malicoumba yow ginnaaw ba yow danga nga doon yalwaan naa le wàccee woo yow yéegaloo sax bay wàccee lan moo la jëlee daara ja. waaye bi jékki-jékki di réew réewlu man daal benn jour. waaw bëgg dem ma dem yalwaani. Mhm. man daal maa yalwaani ñëw mu ne ma Malicoumba. la ñu ma taalaa ko sama loxo jox ko deux cent. mu ne ma dafa tuuti ma jékki-jékki mu ne ma daj poñam ma. ah ana ko yow dafa koy expliqué. ndànk rek Mali Mali Mali Mali Mali Mali bàyyi. dafa expliqué. waaw waaw ma expliqué ko. waaw waaw bëggatu ma. daal mu poñam ma nii. Mali ma ne gaañ de mu ma xam da ngay versé lu mat. ah déet kenn du doon Malick Malick man tamit yaa ngi may bu dee baax na defee nii baax na baax na na ko def sa baay bu tax noonu kontaan baax na baax na comprendre naa jàpp leen ci nag ki yow jàpp leen ci ay bu ma xool baax na baax na